الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد mbokk julit ñi ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala ñi ngi koy ñaan mu julli ca yonentam ba salallahu alayhi wa alihi wa sallam di ko màggal nang yeyoo ñu màggal ko ko màggal gu amul fu mu yem màggal gu amul nu mu toll ni ngi noonu jalla wa ala gannaaw loolu mbokk julit xam leen ne bisu tey bii day ñi ngi ci màggal mbir mu rëy te ab jullit amul droit di màggal lu dul lu ko yàlla sant mu màggal ko ñu ngi màggal événement bu rëy bu fi mas a jaar événement boobu nga xam ni suñu boroom daa tànnoon ak jaam ci jaamam yi jiitu ñëw suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam mu nekkoon jaam bi gën ci ay jaamam yi doon dox ci kaw suuf muy Ibrahima alayhi salaam sunu boroom jàppe ko muy xaritam looloo tax ba sëtam ba ñëwee sallallahu alayhi wa sallam sunu boroom na ko jaaral yoon bi Ibrahima jaaroon te mooy daa jaaroon ci yoon woo xam ne benn bokkaale amu ca léppam da koo jébbaloon boroomam subhanahu wa taala dundam ga alalam ja njabootam ga lépp da koo jébbaloon yàlla kon nga la waay yéeni jullit yi topp leen yoonu ibrahima boobu mbokk yàlla ngi ñuy jàngal ci ibrahim dafa te ay jaamam ak i xarit tamit du tee mu nattu leen yàlla nattu noo ibrahim mu dugg ci néegu sëy waaye dem ba paase juróom ñetti fukki at yàlla muyu ko doom loolu di natt bu metti waaye ibrahim daggul yaakaaram ci boroomam mi ngi ñaan yàlla yàlla may ko doom waaye ban doom ibrahima dafa ñaan yàlla may ko ca doom yu baax ya nga la way dee leen ñaan yàlla may leen doom yu baax suñu borom yàlla mooy tànnal ku ko neex ay góor wala ay jigéen waaye suñu borom yàlla mooy tànnal ku ko neex doom yu baax ak doom yu bon yeneen ci yàlla nuux ma nga neli nekkoon jaam bi gënoon avant ibrahim suñu borom tànnal ko doom bu bon loolee ci natt yi muy nattoo ay jaamam ay suñu borom may ma ci doom yu baax yi suñu borom wërsëgal ko doom boo xam ne yàlla ko tagg ne ku lewet la ku teey la ay ku baax la muy xalim di ismaila alayhi salaam suñu borom yàlla bàyyi ba ismaila moomu mën a ànd ak moom ci liggéey ba mu demee ba doon kuy jub majeur suñu borom ne ibrahim demal nga rendi sa doom jee ismail demal nga rendi te bu la ko woon demal nga rey ko loolu moo gën a woyof nit ki mën nga ko fekk muy nelaw nga dóor ko birig daw wala nga am beneen noo ko defee amma tim di rendi loolee gis nañu ci natt yi gën a rëy la bokk ibrahima alayhi salaam ñëw ci doomam ja ismail ay sama doom sama borom yàlla day damaa jox ndigal ne ma naa la rendi waaye fekk ne ismail yaroon nañ ko yarub lislaam te it xam leen na mbokk ko yar ismaila mooy yaayam ja haajara ibrahima dëkkul woon ak ismail ba muy nàmp la ko jëloon sànni ko ca montagne moon makka ya yaayam haajara moo ko yar muy wane responsabilité bu rëy boo xam ne yéen jigéen ñi am na ngeen ko ci heure boo xamee julli tabaski am na ana fan ngeen jaarale seen njaboot bañ man di jéggal la nga xamee ni nii mooy seen boroom waaye di mën a jéggalit la nga xam ne mooy seen i baay lu bari ci jigéen ñi tey dañuy jàpp ne njaboot gi da nga leen war a accaparer fexe ba dox sa digganteeg seen waajur bu ko defee ñu topp la ci loolu waaye loolu boo ko defee indi nga sa échec u njaboot ci départ amma ki nga xam ne mooy Ismaïl mu ne ay sama baay defal li nga xam ne yàlla sant na la ko da nga ma fekk ma bokk ci ñi nga xam ne dañoo muñ mbokk lii buñ koy jëkk a wax daañu xool mooy Ibrahima alayhi salaam bi ko yàlla ne demal rey sa doom ndax doom dafa naan waaw pourquoi yàlla pourquoi may rey sama doom pourquoi may def nangam ki nangam lan mooy xikma bi nekk ci loolu déedéet def ibrahima xam na ne jaamu bu yàlla la li ko yàlla digal mu neex ko mu naqari ko wuru caa laaj dara jëfe rek moo ca topp te loolu di loo xam ne dañ ko caa war a roy waaye mbokk li gën a yéeme mooy ismail bàyyam ñëw ab xale bu ndaw bàyyi bi moom dund na la mu war a dund moom muy gone gu ndaw mu ne ko kaay ma rendi la waaye lan la ko tontu defal li la yàlla sant nekk fa naan ko mais bàyyi pourquoi mais bàyyi nangam maadaama xam ne ne ne lii ci yàlla la jóge la ca des yoonam nekku ca ku ko war loolu kan moo ko yar mooy wooy juróom wa waa juróom ba haajara yaay ju baax jooju nga xam ne ba ko isma ba ko ibrahima jëlee sànni ca montagne makka ya bàyyi ko fa moom kese ak doomam ju ndaw ja daf na ko ibrahima ndax da ñuy bàyyi fii ibrahima faaliwu ko mu ne ko ndax lii nga def yàlla la ko sant ibrahima na ko yàlla ma ko sant mu ne ko kon demal yàlla duñu seetaan loolu mbokk moo jur daw safa ak marwa loolu moo jur teenu zam-zam comme ni ngeen koy xamee doomam jooju mu nampataloon yar ko ci loolu it keroog ba bàyyam ba ñëwee na ko sama borom nee na ma rendi la tegu ci lu dul bàyyi defal li la yàlla sant dang ma fekk ma bokk ci ñi muñ mbokk muñ ñi ngi noonu mooy muñ ba def ndigili yàlla yi muñ ba ba tere yàlla yi muñ natt yàlla yi tega sa kaw ñi mel nii ñooy nekk ña nga xam ne ñooy muñkat ya ibrahima jóg bëgg a rey doomam ja sunu noon bu mag ba cheytaan mi ne woon suñu borom sa jaam yi day la aqudanna lahum sirataka almustaqim yoon bi nga rëdd ñu jaar sa pour jaamu la ca danaa ca toog daa di ñëw dajeeg ibrahim na ko waa ibrahima dëgg-dëgg nag sa ngëm gi war ko ko seetaat ibrahima gént dong nan nga ciy basé woo ba benn doom bi nga am nga nar koo rey loolu ca place bi ñu tudde jamaatul aqaba ibrahima jël ay juróom-ñaari xeer sanne ko iblis sanne ko bam daw loolu moo tax bisu tey bii boo demee trois millions ya dañu màkk ñoom ñépp daan jël juróom-ñaari xeer sanne ko jamaratul aqaba lan la ñuy fàttali keroog bi iblis taxawee na ibrahim santaane yàlla bi da ngaa dof ba di ko jëfe loolu it nga la waay yow góor yow jigéen ak koo mën a doon xamal ne heure boo jógee bëgg a def ndigalu yàlla seytaane moom mënoo koo gis waaye mi ngi jax-jaxal sa biir xol allazi yuwaswisu fi suduri naas dana bëgg a def pexe bu nekk pour dox sa digganteeg loolu ngal la waaye na nga muslu ci yàlla ci wékku ci yàlla ci def ndigul yàlla seytaane bi ibrahima defee loolu découragé wul ba mu demee ba place bi ñuy tuddee jamratul wusta mu feeñi waat ko da ko ibrahima seedaal daal li ngay def ibrahima dama lay laayi biir ibrahima sànni waat ko ay xeer waaye seytaane découragé wul dem ca la nga xam ne mooy jamratu suxra dañu faat ak moom ibrahima waatal ko loolu mu defal ko ko nam naxe woon sunu maam aadama ba lekk loo ko garab ga waaye ibrahima alayhi salaam jëlaat yeneen juróom-ñaari xeer sànniwaat ko ko encore loolee mbokk da ngay gis mooy lu gën a màgg la ñuy màndargal ci aj màkka kon mbokk lii mooy jébbalul suñu borom subhanahu wa taala lii mooy sunna sunu baay ibrahim suñu yenente alayhi salatu wasalaam ñu laaj ko te waaw lan moo ñu ci ñeel mu ne bépp karaw boo xamee ne nii dafa nekk ci xar mi loolee dafay ñëw nekk tuyaaba yowm alqiyama ay yéen mbokk julit xam nañ ne sunu yenente alayhi salatu wasalaam bam demee madina ne woon nay waa madina ay julit ñi mboolem seet bi ngeen doon seeti bàyyi leen ko benn seet rek la ñu am ñun l'islam seet googu moom mooy feetu tabaski seet googu mooy ba ca teg mooy feetu korité bi ci gën a mag mooy tabaski waaye fa lilahi alhamdu mbokk julit sunu tabis tabaski tey gi day tabaski spécial te mooy tabaski bu ñuy def ci bisu ajjuma bisu ajjuma seet la woon même bu tabaski amul tabaski seet la woon même bu bisu ajjuma amul mu amoon nag bu dee ñaari seet yooyu dañoo daje loolee nekk xéewal gu rëy doonte ne ñun julit ni ñuy xéewloo xéewalug yàlla mooy li ngeen gis nii julit ñu jóge seeni kër ànd ak toroxlu ànd ak dal góor ñi ci kanam jigéen ñi ci gannaaw ñu jublu ci benn boroom mu safaanoog feet yi nga xam ne nii yéeféri ñoo ko woote wala feeti bidaa yi nga xam ne dañ koo dugal ci lislaam demal ci feeti bidaa yi nga xool bu doon gana loo gis kër kër bu dul jeex mbala yi fii jaxasoo góor ak jigéen tappante ila axiri amma mbokk gis ngeen dal gi mooy xet gi jóge ci suñu boroom jalla wa ala mbokk julit xam leen ne seen bis bii tey mooy bis bi gën a màgg ci at mi yépp comme naka yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam waxe nee na bis bi gën a màgg mooy bisu tabaski bisu tey bi it la gën a màgg liñ ciy defal yàlla ki jëloon un million sarxe ko ki rey xarum trente mille moo ko ëpp tuyaaba ca yàlla yàlla bëggul yàlla amul benn jëf bu mu gën a bëgg lu dul ñu daal di koy tuural deret tuural deret jooju day wane tawxid ngay wax bismillah màggal yàlla wane na yàlla dong nga jébbalul comme na ko ibrahima jébbaloo ne keroog ba mu bëggee ren di doomam yàlla dong nga jébbalul comme na ko ismaila jébbaloo ne keroog ba ñu ko diggalee tuddal ñu rendi la loolu kon mbokk bis bi mooy bis bu màgg boo xam ne li ciy daje amul beneen bis bu muy daje ci at mi ba baa déwi ni ci encore bisu tey bi ca la waa ñi nga xam ne ujaaj ca la ñu jóge musdalifa ca la ñuy sànni jamra ba nga xam ne mooy jamra ba ñu benn ba ñuy jàmm muy jamratul aqaba ca la ñuy dem bu ñu paree wat seen karaw ya góor jigéen ña wàññi seen karaw ya bisu tey bii gis nañu ne ca la ñuy dem def tawaaful ifaada wër la nga xam ne mooy kaaba ga léegi wallahi ci suba benn ci soxna yi mi ngi may téléphoné dina wax naan ma imam ñun day dem nañ tawaaf ba pare waaye mbir bi metti na de ma ne ko na am parce que yeneen ci bi alayhi salaam dane loolu mooy jihaatu jigéen mooy jihaatu jigéen keroog ba jigéen ñi ñëwee na ko dañoo bëgg nga jox ñu digal ñu dem jihaat ndax tuyaaba ji ci yàlla def mu ne leen yàlla tànnal na leen jihaat bu armu amul ca mooy aj makka na am bokku jaaji baytillahi alxaram gannaaw bañ dépensé seeni millions génn seeni dëkk tey ñu ngi ci événement bu rëy war a sànni jamra wala def tawaaful ifaada ña nga xam ne dañoo nekkoon ci ifraar wala tamattu war a dawaaw la nga xam ne ni mooy safa ak marwa lii bu ñu paree da ngay gis ne daañ leen rayal la nga xam ne mooy seen hëdiw mi ngi noonu amma yéen amma yéen ak waa Indonésie ak waa Amérique ak waa Arabie Saoudite ak waa partout ci àdduna bi la ma yëg lu dul ñun Sénégal inna lillahi wa inna ilayhi rajiun amma un milliard et quelques de musulmans yi nekk tasaaroo ci àdduna bi penku ak sow ba dëkk yu ñuy wër demal Gambie Mali Mauritanie Guinée Bissau mboolem dëkk yu ñuy wër ñi ngi ànd ak waa Makka ci jaamu yàlla bu rëy googee génn seeni kër ñoom tamit daa di doon daje ca néegu yàlla ba di kabbar borom bi subhanahu wa taala di ko tudd comme ni nga xamee ni nii noonu laa leen fekk ngeen di ko def gannaaw ba ñu daal di julli buñ jullee ba pare toog déglu imam mu fàttali ñu lenn loo xam ne ci sunu ndigalu borom la ñu tëje ko ak ñaan daa di saafonte balonte ak tasaaroo lii lépp mbokk da ngay gis mooy unité bi nga xam ne moo am ci ummatul islam bi suñu borom doon wax naan wa anna hadihi ummatukum ummatun wahida seen xeet mi ngi nii benn xeet la man maay seen borom na ngeen ma jaamu lii mbokk da ngay gis ne kon moom mooy xiiwal bi ñu yàlla subhanahu wa taala defal ak bu nekk mu wër sa gën ñu ne kër gu nekk nañu faray benn xar yeneen ci bi alayhi salaam bégal ñu ne borom kër gi bu doon téeméer ñooy njabootam bu reyee benn xar loolu dana yóbbaale njaboot gi yëpp ay kon bépp julit année bu nekk dana rey benn xar jaamoo ko yàlla xar moomu ngay rey day barkeel sa dund xar moomu ngay rey day yokk la nga xam ne ni moom mooy say tuyaaba xar moomu ngay rey day indi barke ca la nga xam ne mooy kër googu def ko kërum lislaam loolee mbokk da ngay gis ne xéewal la bu ñu yàlla subhanahu wa taala defal doonte ne ni julit bi day jàpp i tamit ne la ñuy tuur ci deret yàlla subhanahu wa taala soxlu ko yàpp wa yàlla subhanahu wa taala soxlu ko waaye lan la yàlla soxla ci ñun mooy ragal yàlla gañ am ak suñu boroom jébbalu gañ ko jébbalul ay yàlla yaa ma sant ne ma naa rey xar maa ngi koy rey yàlla boo ma santoon reyal sa doom danaa ko rey yàlla boo ma santoon tëddal ñu rende la danaa tëdd ñu rende la ay yàlla wuy naa la nangul naa la jébbalul naa la te mbokk ab julit di jébbalul ku dul boroomam subhanahu wa taala moo tax suñu borom ne falahu aslimu bu ngeen di jébbalu jébbalu leen yàlla kese lii mbokk mooy la nga xame ni nii moom mooy feet gu réy gi yàlla subhanahu wa taala defal ñu dooleel ñu ko ca la nga xame ni nii mooy bis bu màgg bi di bisu àjjuma bi na am mbokk julit la nga xame ni nii mooy fukki fan yi ba mu teroo ba tey suñu borom yàlla nee na li yadkuru isma allahi fi ayamin maalumat fukki fan yi yépp fukki fan yi zikrullah la woon waaye am ma keroog démb bi yow ma arafa tero la kabbar yooyu ñu war koo gën a baril rawatina ci gannaaw julli yi waaye mbokk loolu am na benn tuuti ixtilaaf amma nag buñ jullee ba pare la nga xam ne mooy mazhab malik ak mboolem yeneen mazahib yi d'accord nañ ci ne bu ñu jullee la nga xam ne ni moom mooy iit ba ca tisbaar ja war nañu yëkkati kabbar di kabbaral suñu borom di màggal suñu borom noo ko defe baax na doonte ne la ca gën moom mooy allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah wallahu akbar allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd na doon góor jigéen boo nekkee ca sa liggéeyukaay boo nekkee ci sa kër foo mën a nekk waaye rawatina gannaaw ba nga jullee say julli ba pare mbokk lii mooy fet gu màgg gi suñu borom yàlla xéewal nañu yàlla nañu yàlla boole ci jaamam yi koy sant yàlla nañu yàlla subhanahu wa taala nangul moom mooy aji xam moom mooy aji dégg yàlla yàlla subhanahu wa taala jéggal ñu moom mooy kii jéggale la nga xam ne mooy ay bakkaar yàlla yàlla subhanahu wa taala barkeel suñu dund yàlla yàlla barkeel suñu dund njaboot barkeel lañu dund mbooli ñu julit yàlla tàggatoon ibrahima ak ismail ñu jébbalul ko yàlla ñu yàlla wërsëgal ñu jébbalul ko na ko ibrahima jébbaluloon ak ismail yàlla na yàlla subhanahu wa taala wërsëgal ñu nangul ñu ko suñu njaboot gi yàlla nekk njabootuk ibrahim ak hajar ak ismail te mooy njabootuk islam nga xam ne adduna duñ ci xool lu dul seen gërëmal borom yàlla yàlla defal ñu aafiya fi dunia wal axira yàlla yàlla wàcce jàmm suñu réew yàlla yàlla wàcce jàmm ci mboolem réew yi julit ya nga xam ne ñu ngi fay fitnal julit ñi yàlla yàlla yëkkati ñu lislaam yàlla yàlla dimbali ñoom ñu lislaam yàlla yàlla delloo gannaaw ca toroxal yéefér yi nga xam ne ñooy fexeel lislaam yàlla yàlla teg seen kaw lu leen itteel bañ bañ a dem di sunal julit ñi yàlla yàlla subhanahu wa taala dajale ñu ci àjjana ya nga xam ne mooy yi gën a kawe ñu ànd fa ak yeneen ki ak siddiqine ak shuhada innahu ni'ma almawla wa ni'ma alnasir allahuma rabbana atina fi dunya hasana wa fi alakhirati hasana wa qina عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين